suñu kër kër la de la jeunesse suñu ndaw si dëkkam dafa war a participer si développement te gis nañ ne ndaw Fatick yi ñu ngi si projet yi ñu ngi yëngatu si lépp di yëngatu si sport président de la république xam ne ndaw yooyu nag soxla nañ fu ñuy daje di waxtaan di jokkoo di formé wu mu ne dinaa leen indil à travers le PSE li ñuy wax capital humain si biir capital humain boobu nag ndaw yi dafa am taxawaay bu ñu si taxaw président jël koppar yu bëri ne day créer département bu nekk lu ñuy wax maison de la jeunesse ak de la citoyenneté bi nekk Fatick nag moo nekk nii gis ngeen chantier yi ni muy avancer fii ak ay weer jeunesse su Fatick yi dinañ si jot dina am lu ñuy wax guichet unique bépp programme boo xam ne ndaw yi lay jàppale mu nekk DER mu nekk 3FPT ANPEJ yëpp dinañ fi daje ndaw yi di fi mun a ñëw di formé wu ndaw yi di fi mun a ñëw di def centre d'incubation nekk fi lépp day permettre ndaw Sénégal yi ak ndaw Fatick yi ñu am xam-xam am kattan ba mun a ñëw développer Sénégal te xale yi bu ñu leen former si maison de la jeunesse ak de la citoyenneté day wane ne président gëm na ndaw yi moo tax ndawu Fatick yëpp dañoo war a jël projet bi moom ko ànd liggéey jàppale entrepreneur bi mu terminer chantier bi Fatickois yi ñëw am centre boo xamante ne dinañ si mun a jëfandikoo. projet bi nag di projet boo xam ne amal na njëriñ ndaw Sénégal amal na njëriñ ndaw Fatick mu nekk loo xam ne képp kuy ndaw képp kuy jeune war na cee mën a am mbégte ak bànneex ndaxte ñoom la président visé pour jàppale leen ci projet bii nii projet bi nag am na lépp boo xam ne ndaw yi buñ bëggee jàng bëgg a formé wu mun nañ fee ñëw buñ soxlaa ay financement ak loolu yëpp mun nañ ko fee formé wu mun nañ fee ñëw buñ soxlaa ay financement ak loolu yëpp mun nañ ko fee jëlee lépp luñ soxla tamit pour épargne wéeru ay terrain de basket ay piscine yooyu yëpp dina am ci projet bi donc projet bi ça vise la jeunesse donc ñuy ñaax jeunesse bi di ñaax ndaw yi di ñaax ñëpp képp koo xamante ni te rek am nga nga mbégte ak bànneex ci liggéeyu rew bi donc ñu ciy féliciter le président de la république ci initiative bi nga xam ne jëlal na ko jeunesse su Fatick waaw jëlal na ko jeunesse su Sénégal en particulier di ko ci gunge tey ñaan lépp sotti incha allah ba jeunesse bi mun cee jëfandikoo